تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا تركت ما كان لي بغير مبتغيا ما علم لي يا بحاجتي لنا فجاء أبويا رزاق يا مليك am ñoo xam ne seen xel lim leen jox mooy gëstu dama ne leen man indiwuñ ma fi ne ma demal auditer Touba indiwuñ ma fi ne ma demal def li dañ ne ma demal liggéey damaa fas yéene ànd ak yéen bisab tey bi la ñu yàlla boole liggéey bi jëm ci kanam lu ma weesoo yéen dana mel ni jant bi démb nag bu ma ko kenn laaj ndax fekkuwu moo fi engagé wu waaye li ma ànd ak yéen ñu jëm ci kanam bu soobee yàlla ak yonent bi dana leer ki ñuy liggéeyloo dana leer population Touba dana leen leer nañ ñi yéen ñi nga xam ne yéen laa seqal liggéey bi. loolu leer na. parce que ki ma ko dénk muy sama sëriñ daf ne ma maa ngi lay dénk lu doy waar ndax dénkuma la lu kenn moom lu ñëpp bokk laa la dénk. lu te yaakaar naa am naa ci yaakaar ne feet yaa yor duñ ma ci joxan baaroom duma ko jox ku koy foye duma ko jox ku koy caaxaane duma ko jox ku ma ci jox indi la jam-jam te yaakaar naa ne feeg yaa doo doo ma ci am jam-jam dëkk bi duñ ci am jam-jam waaye waxuma moom ci boppam mu am ci jam-jam waaye Touba ci boppam ci Sénégal insha allahu rabbi kenn du ñuy joxoñ kenn du ñu indi jam-jam kenn du ñu ci xeeb kenn du ñu ci ŋàññi loolu moo bi projet bi ñëwee bi ñu nattee càmbar ndax dëkk yi ci war a bokk ndax seenu doxin leer na leer ak bokk ci ndax war nañoo bénéficier ndax dimbale kat eh, eh, pakasel bi ko etee senegal indee ànd teg dugal ko ci réew mi daf na ko na nga seet dëkk yi nga xam ne ñi ngi góor góorlu tey dox lu leer te luñ am def ko ci seenu askan nga de nga intervenir leen ma foofu jàpp leen ma ñooñu te loolu lay doxe fu mu joxool xam ne la ñuy am mu néew ak a bëri danañ ko yóbbu ci askan wi te dana le bu ñu demee ci askan wi dana leer looloo tax mu ñu dugal ko ci looloo tax Touba dëggu ci ñu natt ko ba xam ne mi ngi dox ci loolu ñu dugal ko ci te loolu lañ fas yéenaa doxee li ci des nag mooy lii nga xam ne moo waral jataay bi ndax ñoom bi ñu ñëwee dañoo teg ay conditions aw yoon woo xam ne moom la ñuy doxee képp ku ci bokk dañ laa laaj defe naa ne directeur ARD leeral na ko léegi techniquement ne da nga dafa am juróom-ñeent yu yu ñu yu ñu la tegal ne la nii ngay doxee am juróom-ñeent yoo xam ne dañ ko nat ne lii ngay lii da nga koy da nga koy am door a bokk ci door a mën a dox loolu nag yàlla dimbale nañu ñu ngi ci fas yéene ñu ngi ciy dox ba agsi ci fii ñu àgg waaye ñu ngi ci fas yéene naa dox ba procès bi jeex ba nga xam ne ni ñu ko natte wàllu ñeneen ñi nga xam ne xëy ne dem nañ ba ci biir ñu am rëq-rëq te mënuñoo remplir condition yi bu ñu koy séddalewaat jël ci cër booba dolli ko ci li ñu nattaloon ngir ñu mën a dem ci village yi nga xam ne bépp village boo xam ne bokk na ci commune bi te am looy jàmbat wala looy tawat incha allahu rabbi danañu fa àgg comme nii ñu programmé parce que lii ñu am ren daaw ku nekk gis na ko def nañ ko ci addition d'eau ak benn torsion bi nga xam ne muy godron bu jógee Madiyana dem ba Saam. Mhm. di juróom-ñaari kilomètre li ñu am daaw eh, foofu lañ ko programmé li ñu am ren bisngeen ngeen niñ ko programmé programmé nañ fukki village ak benn maanaam ci yóbbu fa ndox fa programmé nañ fukki village ak benn pour dolli fa courant fa programme nañ juróomi poste de santé ci ay gox waaye programme nañ benn centre de santé référence boo xam ne lii ma leen wax ci mag ñi ak xale yi ak jigéen ñi sa loolu programme nañu ko ci dëkk bi ngir ñu am foo xam ne danañu fa fajoo moo faju moo xam ne dana mérito ak waa dëkk bi loolu nag yemuñu ci ay yi kasaalika école yi ku nekk xam na ne xale yi dëkk bi am na macha allah am nay xale ñi ngi ci daaray alquran yi ñi ngi ci centre de formation yi waaye war nañoo jàng njàngam école li nga xam ne aussi dafa bokk ci jamono te nit danga koy jàngal adduna jàngal ko ah, nan lay def ba jaamu yàlla sunu borom tabaaraka wa taala waaye jàngal ko nan lay def ba am texe yowmal xiyam ñett ñii la ñu wa la bépp wajjur bu jur doom gàddul nga ko sa doom fii ba baa muy am fukki at ak juróom-ñett nga teg ko ci loolu ci diggam ak adduna diggam ak boroomam nan lay xame diineem loolu kenn ku ci nekk warlul nga ko sa doom loolu nag moo tax commune bi jël ay matuwaay yu wére wére lu bare bare bari ci loolu te mën naa ci xam dara ndax man 1993 laa ubbi daara alxuraan mm. bari na lool lu ma jàngal ñoo xam ne dalal sama maa leen dalal baa du tey ñu jàng alxuraan ba mokkal ma dugal leen école ba tey ñi ngi def master 2 def nañ master 2 ñi ay expert lañ ñu ngi ci yeneen liggéey mbir nag boo ko dundee war koo xam te boo ko xamee war koo mën a leeral ba ndax nit lépp lu muy def war na koo am fu mu ko teg war na koo xam kon nag ñu bëgg euh, parents yi ñu góor góorgóorlu ci xale yi jàngal leen ñu xam seen diine jàngal leen ak taalibe jàngal leen adduna jàngal leen métier ndax ñun kat suñu référence suñu Serigne Serigne Touba Xaadimu Rasuul moom képp ku di taalibe ci moom nga war a roy te gis ku gis Serigne Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér jóg yëkkati 37 milliards ne day créer benn université privée boo xam ne yaakaaru ci ku yàlla bind ku dul jëmmi boppam yi ak taaliba yi sëñ Tuubaa yi képp koo xam ne gis na loolu nga war a xam ne te ci adduna bii ñu toll ci jamono yi ñu toll ci réew mi c'est yaakaar naa ne ci ñi fi raw la bokk ko ko fi raw amu fi donc ndax laata muy euh, dafa dafa yàlla dafa dogal mu bokk fi mu bokk xam boppam ba jàng jotee mu jàng ba xam li mu war a xam jox mm-hmm. ba toll fii toog jataayab sëñ Tuubaa moo tax lii mu xam ak ñii muy doxee mu doxee ko kon xam-xam lu am solo la ci nit nañu leen ko nañ ko nañ ko jàpp bu baax a baax te xam nag mooy xam sa diine xam adduna am métier waaye xam sa digg ak sa borom lan la la sant ak lan la la tere